waa bilaay lig bi moo xaw may non lig moo xaw may rek ah. te déwén dañu ñëw non déwén dañu ñëw de a ah. ñëw ba doole nag waaw jëli des champion des championnat non dañuy jaw jawaat bilaay mbir na way bëgg baax waaw waaw maa ngi rek bébé doon ñu ma ko jox maa bébé doon Ладно, список, что? nee na am na licence bu mu dóor nga te bu mu dee da lay suul. mais ragal moom ko moom ci biir làmb ñu tuddee ko estat xam nga estat amu ko dóor estat bi amu ko dóor ndam la moom lañ koy tuddee. mais di ñaanal Gris 2 nag may ko ndam parce que sonn na ci combat bi te daa yëpp taxaw nañ ko ko ñaanal yàlla yàlla sutura ko may ko ndam mu daan doomu daan jël sa kii wax may waral. mais peut être man dama lu def ndax dama lu def dama def lu dama dama kon xanaa na sax dama ko war a bëri daan. kon ñama ko war a defee daal ñama ko ma ko ba léegi. tey rek war na ko laaj. te daa ngi xaar. waaw dama war a bëri waaw Ama Baldé dina dina ci duma daan yow kenn du ko gis moo taxit Sénégal daal xam na luy dëkk am na par rapport ba dama doon ñu dugg àll jàpp àll ko moom mais tey bañ ci la ko rek waaw boo ko gisee xam ne rek su jàpp ne amul benn espèce xam na ne bëre mu sa passé bëre li ci war mooy nga wane jox ko daal loolu mooy daal waaye xale yu dajee daa yor góor boo xam ne suñu ko door tey kàllaama yàq waaw xam nga macha allah loolu xool ñu ñoo ko xaw a suuf kon loxo nag mën na dal mais kii normalement koo waaj benn benn ko mën a li li ñu liggéey ñun heure bu loo xam si jógee war nañ ko mën a ndax maîtriser doomu daangu dana yomb non yomb na ci naka ah ci naka tàmmañ bi daam bu dalee lu bëggoon da koy am mais bala moo dal yow ñun liggéey nañ ci loolu Lac Rose secteur loolu la mooy njaar ndéem bi daay daay dala njaar ndéem baa ngi noonu cey kooku kooku xale bee am na fu mu teg tànk nee na la ma bëgg a poussé gannaaw yi Lac Rose ñi ko xam ne liggéey na